kenn ku si nekk sa tur ak sa sant euh, di leen jaajëfal si teewaay bi fii tey ñuy jiital si nuyoo bi euh, les membres du comité d'organisation yi nga xamante ne ñu ngi fi teew kilifa yi nga xamante ne ñoo jiite holding invest group di liggéey ci Fodel bi di nuyu bu baax la presse sénégalaise euh, di leen jaajëfal di leen wax rek ne balaa ñuy tàmbali réussite Fodel bi. seen loxo lañ koy teg ba pare parce que lu fi baax yéen ko accompagner ba nit ñi mën ko xam donc nous comptons beaucoup beaucoup sur pour la promotion du forum euh, euh, Fodel nag structure bi koy organiser Fodel c'est le forum des la ko maanaam daje bi nga xamante ne ñi nga xam ne dañu am ndomba tànk boo xam ne PAL moo leen ko jox ñu ngi koy war a amal ca France le entre le quinze le 17 entre le quinze le 16 et le 17 décembre ñi nga xam ne ñoo am doom ba tànk te ñu fal leen ñoo ko fay amal pour mën a daje ak seen ay naataangoo yu ne bitim réew yu nekk France ak yeneen dëkk mën a am lu ñu indi ci réew mi ci coopération structure bi koy organiser nag Holding Invest Group la tudd ay doomu Sénégal yoo xamante ne. ñenn ñi ñu ngi fii ñeneen ñi ñu ngi Maroc ñeneen ñi ñu ngi France ku si mel ne monsieur Aliou Gassama ñoo ko taxawal parce que dañu xool ne état mënul def lépp collectivité locale yi c'est vrai que trois de la décentralisation bi ñëw na jox leen ay compétences waaye moyens yi nga xamante ne moo ko war a gunge ba li ñu bëgg def ci seen gox yi ñu mën koo def dajewul donc il faut ñu ut ay yeneen pexe maanaam dem. wuti ay coopération ay partenariat public privé ñoo xam lu mu mën a doon pour mën a suqali seen gox yi mën a réaliser projet yi nga xamante ne ñu ngi koy am seen gox yi Fodel euh, forum des élus locaux euh, plateforme la boo xam ne comme ni ma ko waxee léegi ay élus ñi ngi ci ay hommes d'affaires ñi ngi ci ay femmes d'affaires ñi ngi ci donc euh, nit ñu bari ñoo ci nekk pour mën incha allahu rabi jàppale c'est euh, euh, suñu communes yi suñu département yi ak euh, région yi pour ñu mën a suqali seeni gox objectif bu njëkk bi mooy comme nañ ko waxee léegi fexe ba ñoom ñu am ay partenaires lu leen mën a jàppale ci santé mën leen jàppale ci sport mën leen jàppale ci jeunesse parce que forum bi bu ñu ko réussiré lu bari dinañ ko wàññi peut-être chômage mën na wàññeeku. parce que lu mel ne agriculture nga dem am foofu ay partenaires yoo xamante ne dinañ mën ñëw jàppale la si sa gox ba nga xam ne xale yi nga daan gis ñuy dem di jéem a def immigration clandestine dinañ am ci lu ñu jàpp loolu day xeex contre chômage dinañu dimbale ba lu mel noonu wàññeeku. Euh, beneen bi mooy lu mel ne jigéen ñi partenariat euh, dafa c'est important coopération c'est important man damay jël rek benn exemple euh, en 2019 génn nañ dem avec l'association des écomaires du monde. tase fa ak ay partenaires yoo xamante ne permettre nañ ñu tey ñu décrocher ay financement ak waa Luxembourg mën a jàppale ay jigéen yoo xam ne ñu ngi ci 26 groupes 26 départements yoo xam ne benn bokkul ak sa moroom indi matériel benn bu si nekk di jax 6 millions jox ko jigéen yoo ñu toog si seen ay gox di liggéey. Fodel nag euh, c'est un grand rendez-vous d'acteurs bii peut-être mën nañ ko tuddee Fodel 1 bu ñu paree mën nañ ko délocaliser ñëw Sénégal dem Maroc. dem ci yeneen dëkk yoo xamante ne dinañ xam ne dinañ fa mën a dajeek ay nit ñoo xam ne dinañu mën a jàppale pour li ñu bëgg si suñu biir gox yi ñu def ko ñu ngi tàllal ñëpp loxo les autorités sénégalaises les maires les présidents de département euh, ñu ngi tàllal ñëpp loxo pour incha allahu rabbi liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko bëgg nañ ko def suñu borom suturaal ñu si may ñu ci ndam. donc ñu question yi daaj euh, léegi ci français ñu jéem ci tontu ci. ci wolof man bi may njëkk tontu mooy voilà avant le vieil même élu yi naka la ñuy def ba ñun élu yi nekk ci dëkk Sénégal yu gën a sori ñu mën a ñëw ci forum bi xam nañ ne ci budget wu mairie bu ne dafay am benn rubrique boo xamante ne dañ koy bàyyi pour coopération ak pour ay voyage ak yooyu donc mairie bu war a dem Euh, conseiller bu war a dem am nga sa frais de mission bu toll ci fanweeri junni par jour donc boo waree def 10 jours di nga am suffisamment de moyens yoo xamante ne dina la mën a permettre nga nekk fa dina la mën a permettre nga participer ci forum bi sa billet d'avion sa mairie moo la koy jëndal pour nga mën a participer ci ci forum bi pourquoi le choix de de Paris parce que am na lu ñu fa tabax ba pare Aliou avant muy ñëw il a rencontré le président du département des Yvelines le maire de Mantes ak yeneen kilifa yoo xamante ñi ngi fa et ils sont prêts fi mu ne nii sax dañuy xëccoo kan moo ñu jox saal ak kan moo ñu dul jox saal li ñu fàtte wax sànq rek mun nañ ko fi dugal tuuti su ñu demee dafay amaale benn salon de l'immobilier on a rencontré euh, le DG de la SICAP ak yeneen structure ñooñu bu ñu demee ak yi nga xamante ne ñu nga fa bëgg ay kër ñu mën a waxtaan ak ñoom dañuy def tam benn dîner de gala boo xamante ne dina permettre ñun suñu couturières yi fii wala suñu stylistes yi fii mën a wane seen liggéey foofu mu nekkaale njariñ ci ñoom ñu mën fa jaay mën a avancer tuuti euh, les levier yi nga xamante ne moom la ñu am pour mën a euh, def forum bi duñu ko on va pas réinventer la roue li nga xamante ne moo fi nekkoon niñ ko daan organiser noonu lañ koy defee bokk nañ ci ay kuréel yoo xamante ne dañuy organiser foofu ay événement li nga xam ne ñu ngi koy def mu baax boobu ba léegi moom la ñuy jël sukkandiku si pour mën a réussir suñu événement foofu donc euh, defe naa loolu la les dispositions les les les objectifs li ñuy jublu ci forum bi mooy au soir du 17 bu ñuy pare ñu ne le département de bambay am na partenaire bu mën a jàppale commune am ci agriculture te ci euh, jokkalante lay doon nekkatul comme ni ko Aliou waxee léegi nga dem ñu jox la edd moowu aide boobu dañ koy dind ba mu set tuddee ko coopération tuddee ko jokkalante bu ñu demee ñun dañuy jël li baax ci ñoom ñoom ñu jël li baax ci ñun première édition bi la ñuy defee foofu mais yeneen édition yi dañ koy defee fii su ko defee ñoom tamit dañu am ay intérêt fii ñu ñëw xool lan lañ mën a jëlee fii yóbbu ko foofu donc objectif yi loolu la fexe ba jàppale suñu communes yi ndax xam nañ ne les fonds de dotation ak fonds de concours doyul pour mairie yi mën a réaliser yi nga xamante ne am nañ ko social kese day yóbbu budget mairie te bu ñu xoolee ak acte droit de la décentralisation bi bu ma jëlee commune bu mel ne Grand par exemple mën naa ne li ñu am yëpp salaire lañ koy fay parce que ak acte 3 bi dañ la jox personnel de santé bi yëpp nga leen di fay te liy génn ci structure de santé yi duggul ci mairie bi donc ay jafe-jafe kese la ñu nekkee il faut ñu ut ay pexe yoo xamante ne dinañu permettre ñu mën a dem ba mën a indi dara pour jàppale suñuy administré donc euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi